monsieur Mamadou si Albert ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow ngay taskatu xibaar bindkat it waaye tamit di def ay analyse euh, muy jàngat ci wàllu politique euh, politique googee la ñuy tàmbalee waxtaan wi ñu wax euh, ci élection locale yi nga xamante ne ba tey juboo amagul ci kon ana kañ lañ ko war a amal ci sa xalaat lan moo waral ñàkk déggoo bi. waaw dafa yàgg ñàkk déggoo dafa yàgg ci ci Sénégal mais amul amul lu bees donc ñàkk euh, déggoo gis nañ ko ci nguuru Abdou Diouf euh, Abdoulaye Wade ba tey ji mais lu ko waral mooy que euh, politiciens yi dañu dañu calculer trop trop trop trop ku nekk dafa dafa jiital intérêt am intérêt parti am intérêt goxam et loolu mooy li ñuy wax clientélisme ñoom gisatuñu sax élection lu ñu gis rek mooy euh, jeu bi euh, ba dañuy dañuy dem euh, compétition man dinaa la gagné dina la def lii dinaa la padd ab enjeu élection lañ la la ñu xamatul mm-hmm. alors que élection mooy démocratie du du du coow li coow coow li discussion bi débat bi loolu préparation la rek mais dëgg-dëgg démocratie mooy élection sa askan bi lañu la ñu joxul ak xam mhm. et tant que ñu ngi ci logique clientéliste bi mais du ñu gis askan bi soo soo xoolee tey ji est-ce que jaadu na depuis deux ans ñu ngi waxtaan ci ci élection te ask euh, askan bi moom moo moo moom moo war a tànn hmm. kenn déggul baatu askan kenn demul ne nañu def référendum yu laaj sénégalais yi euh, naka ngeen gisee élection yi euh, mais ñoom ñu ngi seen biir ay politiciens donc hmm. loolu moo tax bon culture boobu en tout cas baaxul euh, su tasaaroo rek lay indi xiiroo ak ak ak ŋaayo hmm. bon yaakaar nañu ku nekk ci ñoom mu ngi calcul parce que ku nekk opposition bi dafa bugg élection bi am deux mille vingt et majorité bi bëggul loolu dafa bëgg dàq élection yi ba deux mille vingt deux bon loolu. lan nga jàpp ni moo indi loolu ci seen xalaat ku ci nekk ñoom ci wàllu politique. stratégie bi. waaw loolu loolu mooy wure dañuy wure opposition bi xam na ne tey jii euh, le le gouvernement bi am na am na problème problème bu rëy euh, problème bu xëy am ab gouvernement bi amul solution xëy xale yi. Hmm. amuñ solution formation amuñ euh, solution euh, service de base muy santé muy école. Euh, Euh, yoon et cetera et cetera donc loolu yëpp ay jafe-jafe xam nañ ni que ñoom ñoom opposition bi su ñu waxoon leen dañuy organiser élection mais loolu moo leen arrangé parce que duñu euh, dañuy taxaw gën a xeex gën a wane sénégalais yi gouvernement bi liggéeyul ni mu war a liggéey. maa loolu ci jafe-jafe la ñu mën a amee dara. ci jafe-jafe la ñu mën a amee dara parce que électeur dina la déglu. Hmm. que mi moom am na am na problème yow nga wax yow am nga problème man am naa solution bi mais loolu opposition bi lay arrangé mais gouvernement bi xam na ne que situation bi ni mu demee nii amatul beneen digge bu mu mën a def nit ñi déglu ko. et gouvernement fu mu toll nii amul amul lenn lu mu am lu dul digge même boo xoolee ñu muy coow ne Macky nee na dina def cent cinquante milliards pour yi pour euh, emploi mais boo déggee Sénégalais yi ñëpp dañu ne wax mais xaalis boobu fan lay jóge wala xaalis boobu kañ lay ñëw. Hmm. ay ay digg la lar a nekk. donc soo xoolee ku nekk dafa am stratégie opposition bi am na li muy wut pouvoir bi aussi am na am am na li muy wut waa wante nag aussi il faut ñu wax ne que élection yi euh, élection locale moo moo gën a jafe élection ci élection te hmm. législative euh, am na am na euh, signification am na contexte présidentiel am na mais wante lu gën a jafe ci élection locale mooy que il faut nga am candidat ñi nga xam ne nit ñi bu am nañu yaakaar euh, yaakaar ci ñooñu Hmm. mais mais est-ce que tamit yaakaaroon ni juboo war na mën a am ndax euh, euh, différence bi bëriwul diggante décembre deux mille vingt et un ak janvier deux mille vingt deux daanaka benn weer rek a dox seen diggante. waaw mais mais bu doon yoon bu doon yoon ci dëgg-dëgg. Hmm. mais ñii di wax fin fin mille vingt et un décembre ñii di wax début deux mille vingt deux mais loolu amul benn différence président de la République woon seetaan loolu sax. Hmm. dañ ne Sénégal dafa am nguur nguur gi mooy nguuru Macky Sall mooy pouvoir. beneen bi mooy mooy opposition mais Macky Sall naka la war a toogee di xaar euh, oppo am sa opposition opposition nee depuis un an ñoom lu bugg bëgg mooy nga reporter ngeen def dialogue politique mais nga respecter date deux mille vingt et bi. Hmm. mais loolu moo doon accord politique bi loolu tax nit ñi dem PDS boo xoolee ba ba tey ji PDS bokkul sax ci négociation yooyu euh, donc Macky Sall warul woon xaar loolu dafa waroon fekk ci opposition bi ne comme nangul ngeen ma dialogue politique discuter nañu léegi nañu def date de de Abdou Diouf Abdou Diouf defoon na fi consensus ne du ma du ma ci dindi virgule mais loolu du wàññi doole président la République defe naa président Macky Sall bon ba léegi am na ñu yaakaar que dina woo opposition bi ne leen comme nii la demee. ne bon d'accord ak yéen après mais loolu mën naa am mais c' est vrai que aussi Macky politicien la bu xoolee euh, waa Benno ne ko noonu nañ jëm ba deux mille vingt deux mais moom day topp day topp hmm. waa Benno léegi mu ngook moo tax juboo amul ci diggante ñaari pàcc yi mujj gi dogal bi nag moom moo koy jël dogal bu mujj bi euh, ndax jaroon na kon cooyee ndax bu ñu xamoon ni lépp fii lay mujj moom mooy dogal. ah mais mais opposition bi moom euh, Macky Sall dafa leen dribblé dafa leen dafa leen manœuvre ah, dafa leen manœuvre na def na dialogue politique am na lu mu doon euh, seet am na ko léegi opposition bi moo amul dara opposition bi moo amul fenn fu mu mun a jàpp tey ji du du du date bi du audit bi du euh, du évaluation bi du contrôle euh, administratif du du du gestion processus électoral bi donc franchement bu dee dëgg la ñuy wax Macky Sall manœuvre na am résultat bi mu mu doon seet bon léegi opposition bi. lu wóor ba wóor mooy que ñoom ñëpp xamuñ que tey jii ndax na dialogue bi naxe mbaay la woon mais soo moytul dinañu gën a radical et loolu nag moo moo moo moo gën a euh, doy waar ci ci bi cest à que est-ce que opposition bi ci ak at day continuer attaquer gouvernement bi di dénoncer mais loolu la aussi baaxul ci baaxul ci suñu démocratie. Mmh. ñu wax léegi monsieur si ci enjeu euh, nu géopolitique bi géopolitique bi bindoo léegi ñu gis ni xalifa Sy Khalifa Sall kenn ci kàngam ni gannaaw li mu dundoon ak wàllu yoon mu tàmbalee delloosiwaat ak ay kaddu léegi mu yëkkati sorti yu muy def di attaquer régime bi. ndax da nga jàpp ni loolu rek moo ko mën a delloo si ci place bu mu nekkoon. waaw waaw waaw loolu loolu rek loolu moom xam na moom xam na xam na socialiste la la yàgg na ci yàgg na ci géew géew politique. bon fu mu nekk nii euh, génn na génn na prison am na liberté am am na parti politique ku am expérience la mais xam na ne aussi bu dee moom Euh, dina nekk dina participer ci élection locale dina participer ci législative dina participer présidentielle deux mille vingt quatre mais fi mu ja mu jaar day xeex donc moom xam ne tant xeexul nguur gi du am lu mu lu mu lu mu lu mu lu muy set du mm-hmm. tànk boobu la nekk bon mu ngi préparer élection locale mu ngi préparer législative mu ngi préparer présidentielle loolu moo tax soo xoolee ci biir opposition bi tey jii à part euh, bon Ousmane Sonko Khalifa moo fi nekk mm-hmm. donc donc euh, bon xam na ne que moom dafa wute ak. Euh, Karim Wade euh, boolewoo ko ci. non bu dee bu dee rapport de force la ñuy wax tey jii. Hmm. Euh, en tout cas opposition bi. Pastef la ak ak ak waa Khalifa. taxaw Sénégal taxaw Sénégal am am na yeneen parti yu nekk ci Front nationale de Résistance. Euh, moom xalifa bokk na ci Pastef bokk na ci mais ci biir opposition en tout cas ku ñu gën a ràññee tey ji mhm. mooy euh, Pastef ak. Euh, Khalifa ak waa ak xalifa mhm. mhm. léegi ay xibaar di xam ne ni kon moom xalifa saal ci boppam mu mel ni dafa namm xalal yoon wi kenn ci ay jegeñaaleem muy Barthélémy Diaz ndax yaakaar nga ni loolu lu mën a nekk la Barthélémy jiite Ndakaaru. waaw lu mën a nekk lu mën a nekk la xalaat bu bees la day wone day wone euh, maturité maturité euh, Barthélemy Dias ak maturité taxaw Sénégal ak surtout courage courage euh, Khalifa Khalifa xam na ne que moom nekk na maire bon responsable politique yàgg na depuis des décennies et des décennies mu ngi fi amatul dara lu muy lu muy wone mhm. ci wàllum élection locale donc kooku su toogee jéem a préparer Barthélemy Dias lu war la loolu mooy faiblesse parti politique yi Euh, donc su jëlee décision boobu xel euh, décision bu baax la. Mhm. mais surtout que contexte bi mu nekk nii Barthélémy Dias fi mu nekk nii. am na ay yeneen xale yu mel ni euh, waa Pastef comme Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen ci mouvement opposition bi dafa am benn génération de jeunes. Mhm. ay ay génération lu ñuy tuddee sax des générations sacrifiées politiquement. ñoo ñooñu dañu leen sacrifier muy PS muy PDS muy opposition bi dañu sacrifier génération boobu et génération boobu Barthélemy ci la bokk Barthélemy am na expérience politique soo xoolee tey jii ci opposition euh, moom rek pratiquement moo nekk maire hmm. bon am na expérience politique euh, am na formation am na formation bu baax ci ci wàllum politique am na aussi euh, opposition naka lay demee te yàlla def mu juboo ak waa ñoom waa Pastef ak euh, génération bi bi mu àndal donc loolu lu baax la lu baax la que ñu préparer que ñu ngembe ko bon parce que il faut aussi mu xeex il faut mu xeex pour am dara. Hmm. Euh, ci xeex boobu ñu njort ni kon xëy na mu proposer alliance ak yeneen partie opposition yi ku ci mel ni kon Pastef ak ñeneen ndax loolu yaakaar nga ni mën na nekk bu ñu xoolee ambition ku nekk ci ñoom. waaw stratégie bu gën. Hmm. bu gën téji ji euh, su ñoom def nañu seen njàngaat euh, ñu jàngaat situation politique électorale Sénégal. Hmm. gis nga PDS. rek moom amun fi doole pour jël ndakaaru euh, jàkkaarloo ak parti socialiste mais depuis 2012 ba tey ji amatul benn parti bi nga xam ne mën na jàkkaarloo tey ji ak Macky Sall euh, donc loolu euh, suñu def suñu waxtaanee seen biir ñu am coalition pour ci mairie yëpp ñu am des candidats consensuels loolu moo gën su suñu amul consensus ñu def li liste unique ñu ñu ànd ñoom ñëpp ñu nekk euh, benn opposition bi nga xam ne dañuy benno euh, ragal naa suñu amul unité boobu mënu mënuñu lu dara bennoo euh, bokk yaakaar bennoo bokk yaakaar non seulement am na expérience bi mais am nañu les moyens financier te yore nañu nguur Euh, loolu bon facteur euh, sooy xeex quand même da nga war a xool su ki ngay xeexal euh, bon fan la doole am nekk doole doole bennoo bi mooy booloo. Mhm. donc opposition bi su buggee am doole su buggee am dara mais il faut fu ñu jaar ñu ñu ñu ñu booloo te defe naa bon Sonko. ak xalifa bon ñu ngi waxtaan xam naa ne Khalifa en tout cas su waa parce que Khalifa dafa xam dafa am expérience élection. Hmm. moom mooy reste doon responsable élection PS. Hmm. donc am na ci expérience bu rëy nañ ko déglu suñ ko déglu bu baax bon xëy na dinañu am stratégie bi nga xam ne dina am résultat. Hmm. Euh, benn boobu ngay euh, sàkku ci local yi ngir opposition bi ban rapport la mën a am ba élection présidentielle yu ñu dëgmal ndax dina wëy. non euh, élection présidentielle beneen beneen euh, beneen beneen élection la dafa wuute ak euh, local dafa wuute ak législative bon mais de de de de élection bu nekk dafa laaj stratégie ah, ni ñu waxee tey jii stratégie élection locale. Mhm. opposition bi daf warul warul xaar ba deux mille vingt quatre pour pour xalaat stratégie deux mille vingt quatre. politique dematul noonu. élection présidentielle. <coughs> da nga koy préparer au moins deux ans ah ci li gis ci expérience boo buggee vraiment préparer élection présidentielle il faut nga am deux ans de préparation Hmm. mais de deux ans nag euh, moo mënoo xaar ba ay bu des six mois cinq mois nga bëgg a nekk président la république loolu loolu amul fen hmm. ma Macky Sall wane na ko 2008 dafa jógee PDS dem créer parti am def stratégie am pendant quatre ans quatre ans Abdoulaye Wade def na fi stratégie pendant vingt ans c'est c'est au bout des vingt ans le réussir donc opposition bu aussi bu mu nax boppam hmm. te élection bu nekk nañ ko jox àqam local nga am stratégie législative nga am stratégie ñu amee ndam local ak ak euh, législative c'est sûr et certain dina ñu mën a préparer deux mille vingt quatre Mamadou Sy Albert ngay taskatu xibaar bindkat waaye tamit analyse politique ñu ngi lay gërëm ci sa disponibilité. merci maa ngi lay fay bu baax jërëjëf.